tali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo mboolem yéenekaay ñu xëyandoo xëy ci wàllum Miss Sénégal ak njaaxuma giraawaal yeeg tappale yi nga xam ne moo am ci biir yéenekaay gi di Les Échos xëy di ñu xibaar ay Miss yoo xam ne ni leen jàppee sóorewul ak ñoo xam ne maanaam ay caga la leen jàppee yéenekaay gi nee na ay Miss escorte gala ñoo xam ne autorité yi jógee bitim bu ñu ñëwee ci Sénégal Miss yooyu lañ leen di jox maanaam ñu leen di koraasu ak di leen làmbaatu maanaam def leen seeni caga yéenekaay gi nee na am ne dañu leen di jëlee Sénégal yóbbu leen Dubaï waaye nag bu ñu demee lépp la ñuy nangoo yéene kaay gii di Les Échos Miss Labadou di nettali nee am na jamono joo ne hôtel Voile d'Or leen yóbbu waaye nag dañu leen a xaajale ñoom miss yi kenn ku nekk ñu boole la ak benn góor moom nee ki ñu ko boole loon Moussa la tudd waaye nag Moussa bi mu ko commencé làmbatu maanaam bëgg yegg si kawam noone ca lànk si la ñu ko génnee ci hôtel bi booba minuit moo jot yéene kaay gii du L'Observateur ñu xëy fekk fa Miss Kaolack 2019 muy ne ma ngi nettali nee na ci biir mbir mi daal maanaam xaalis bi moom bëri na loola dina bëri tamit ay voyage xam ne di nga ko def waaye nag di nangu li nga xam ne mooy rapport sexuel te nag lu jëm maanaam sax ginnaaw nañu laa yokkalub xaalis yéen a kaay gi di bu ñu organiser la journal bi nee na Miss Sénégal 2016 di moom ti ma ngi nettali nga xam ne moom la ñu ko bëggoon a def yéen a kaay gi ñu xëy mi Sénégal moom nag mi ngi jégglu ci kàddu yi nga xam ne maanaam yëkkati woon na ko yéen a kaay gi du l'observateur nee na mbir mi ba léegi ni daal maanaam ubbeeguñu ci a ah kaay xëy dañu xibaar naan ñu bëri ay miss yoo xam ne jafe-jafe yi ñuy dund xëy ko nettali a kaay gi di ñu daal di koy tas ah yéen a kaay gi de Le Quotidien nee na ñàkku nga xamoon moo amoon ca diwaanu Mbuur léegi tey mu dañ ndax nag kaaraange ga jamono ji kilifa yi a ah kaay gi sa ñu xëy fekk fa Moussa Baldé ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi daal nay wax ne ñi nga xam ne ñooy paysan yi maanaam béykat yi bu leen neexe sax ñu jaayee kilo gerte 1000 francs état bu Sénégal 250 yi nga xam ne moom la wax maanaam gën gaa néew la yéen a kay gi du Sud Quotidien nee na en tout cas li am ba des daal lu jëm ci wàllum jënd ak njaayum gerte mi ak prix bi nga xam ne maanaam moom lay état bi fixé am na nag ay béykat yoo xamante ni ànduñu cee yéen ne kay gi xëy ñu xibaar naan ñu administration territoriale war nañu leen a jàppale ndax ñoo ngi dund ay jafe-jafe yu métte métte ñu bëri amuñu ay moyen li nga xamante ni mooy auto de service sax amuñu ko yéen a kaay gi xëy diñu xibaar naan ñu parti socialiste socialiste yi nekk ca diwaanu Thiès jamono ji mer ba mara détaal yi ndax dañu leen a sàppi ci liste nga xam ne moo jëm ci élection locale yi ñu dëgmal la moo tax mer ba mara détaal yi interpellé ki nga xam ne mooy Aminata Mbengue Ndiaye yéen a di enquête xëy diñu xibaar naan ñu cour d'appel bu Thiès daan nay dëggal candidature Cheikh Issa Sall ndax Cheikh Issa mii dafa am ñoo xam ne dañu ko clamé woon fa mbaxana a toog na lu toll ci boo xam ne nekkul magistrat yéen a kaay gi di Les Échos ñu koy fekk fa Cheikh Ibrahima Maye Niass moom nag daan nay sermoné ñi nga xam ne ñooy classe politique bi nee leen bàyyi leen di wax xale yi saaga leen bàyyi leen di wax xale yi toj leen di wax xale yi wàcc leen ci mbedd mi xale yi dañu leen a war a yee bañ leen a yàquloo yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy séq waxtaan wu yaatu ak rappeur bii di Thialé Thialé nee na caatu 1993 la gisoon groupe bu Caaroye boobee wax li nga xam ne moo am ci biir rap bi la jóge wax na tamit groupe Flamme ji lan moo tax mu daal di tas membre yi léegi fan la ñu nekk moom Thialé daan nay wax ne jamono ji rab bi tendance moo si ëpp yéen kaay gi di Stades xëy di ñu xibaar naan ñu Premier League ca Angleterre tey jii soog bu mag am na diggante Liverpool ak Arsenal